suñu conférence bi ñaan bi wax nañu jeunesse bi wax nañu jigéen ñi wax nañu père de famille politiciens yi ñëw nañu euh, ñaan nañ leen vraiment ñu xam ne ñu fàttaliku ne ñun dañuy tagg ci biti réew yi naan sénégalais dañoo yaru sénégalais dañu nitu jàmm lañu te loolu nag amuñu droit pour décevoir xamuñu suñu bopp waaye nit ñi xam nañu fonk nañu ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fitna dee na dafa nelaw yàlla rëbb na ku ko yee ay du yem ci bopp boroom kon nañu moytu candidat yi dañuy wax ne ñoom ñëpp ñoo bokk réew mi jarul xuuloo jarul xeex nañu ormalante bu ñu saagante bu ñu xasante Cette conférence entre dans le cadre de notre programme. Nous avons eu à traiter plusieurs thèmes. Hein. Il y a un thème central intitulé l'islam, euh, euh, la paix, la cohésion sociale. Nous avons parlé du rôle de la jeunesse. Le pays nous appartient à tous, donc euh, nous n'avons pas le droit de se voir ce que pensent de nous les autres, que le Sénégal est une démocratie très mûre, c'est un modèle euh, donc euh, il faut qu'on veille à cet espoir-là. La violence ne doit pas avoir de place dans une société civilisée.